mooy jamono jii ñu ne ku jegewul ci informel dem ci formel te nga ne danga nga bëgg ci marché état beeg yooyu def naa ne mënoo ko am parce que pour gagné marché état il faut nga respecter norme administrative yi nga xam ne moom la état teg nga am kayit yi war li nga war a fay nga koy fay fi nga war a dugg nga fay dugg fi nga war a dem nga fay dem donc loolu pour ñu nekk en phase ak li xew léegi ci àdduna bi il faut ñu formaliser wu professionnaliser secteur bi nga xam ne ci lañ ne muy secteur u gerte waaw formation dafa war parce que koo xam ne yaa ngi yëngatu ci mbir ay année durant nga ciy gañe gerte di si di si gañe xéewal mais du lool rek moom lañu war fa lañu war a yem cest à il faut nga jéem a seet activité boobu ngay yëngatu nan ngay def ba ba créer ci leneen loo xam ne dafay juraat yeneen emploi donc doo yem ci li nga doon def rek soo demee ba kii da ngay def sa benn bilan xool fi nga nekkoon nag fi nga jëm fan moo gën nga bàyyi ci li nga nekkoon jéem a xool noo def ba professionnaliser ce secteur jéem a uti leneen daal. tout ça deux hectares trois hectares du pour béy mais c'est pour pour installer fa benn centre d'entreposage la nga xam ne dañuy wëcc bàyyi abri provisoire yi dem ci centre boobu mais loolu association bi moo ko moom du pour ku ci ne fii mu nekk nii sa entrepreneur bokk nga ku nekk dafa yor sa entreprise mais dañoo daje nag créer loo xam ne ñun ñoo koy bokk muy adop léegi nag centre boobu moom lañ bëgg a installer si 3 hectares yooyu ñuy wax. càkkutee fi de bi si njëkk mooy fexe ba CENA mooy commité national interprofessionnel de l'arachide bi dugal ñu si ci biir ñu bokk ci membre yi bi ci des daan nañ am problème ak banques yi parce que dañu am souvent ay retard de paiement banque yi di ñu teg ay pénalité te retard boobu du jógee si ñun mais contrat la bu dis bu bu nekk suñ diggante ak huiliers yi léegi bu bu huiliers yi yéexee fay état def ñu kii banques yi dañ ñuy kii ay pénalité